waxtaan wi auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maaliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin amiin qul auzu bi-nnaasi maaliki nnaasi ilaahi nnaasi min sharri waswaasi xannaasi allazi yuwaswisu fi suduuri nnaasi minal jinnati wan-naasi qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad alam nasrah laka sadraka wa wadana anka birak allazi anqada zahraka wa rafana laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza farahta fansab ila rabbika farhab allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man za allazi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim xool suuf ba xool asamaan ba xool weer ba xoolu jant ba xool doj ba xool géej ba ku nu fi xool yàlla na nga ñu fi ba aje kon xam naa ni dañuy jox kàddu gi Sidi ndax pour gagner du temps am na ñu nuy xaar ñeneen euh, baakan moom mu xam ni tey doomam moo ko seet si jarbaatam moo ko seet si njabootam moo ko seet si ci lii nga xamante ni si nag moom la ñuy nas pour yóbbu foofu ci jeunit mooy liñ ci gën a intéressé suñu àdduna mooy ñaanal ko yàlla suñu borom yoonam leer nañ ngeen ànd ak moom bés ba sagal ko sagal seen bopp sagal waa Sénégal bismillah waaw Père Mbaw maa ngi maa ngi lay nuyu yow mi nga xam ne yaay kilifa jotaay bi du nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi toog suba teel bi yëpp xarit am di jàmm soppe képp ku fi toog rek maa ngi lay nuyu maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu tamit presse bi nga xam ni comme ni ma ko waxee rek depuis affaire yi commencé ba tey ñi ngi takk seen digg di ci jàpp bu baax tey nag sëñ Bakke dama ñëw seet si suma papa koo xam ni eh, kenn la ci man koo xam ni c'est un monument fii ci ci ci musique gu Sénégal rawatina ak Afrique rawatina nag li nga xam ne mooy percu donc muy nit boo xam ne nit ku yàlla baaxal la man ak moom nag ñu bokk Serigne Serigne Saliou nga xam ni bàkkan moom seen bu mu yéeg wax na ko benn gérlaam muy Serigne Saliou ma ñëw tamit fekk fi njabootam suma xarit maa ngi koy nuyu kaaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ñuy ànd moom it mu baax loolu moom nag yàlla dafa dogal ay doomam nekk ci man waaye ba ñu nekkee ci man ba tey it euh, musu ci wax wala mu jëf ci benn kàddu gu jàppale leen seen frère Sidi te comme ni ma ko waxee barki démb kër Baaba Maal bi ñu fa dajee ma ne ko sa studio it yi gën a cartonné sama àdduna foofu laa ko defee te jigadiwuma waaw man nit laa boo xam ni damay gërëm di wax te it li may wax duma wàññi dara ngalam fii laa ko defee ci kër gi te ngalam ku ne xam na ni fait partie de mes meilleurs tubes jaagu mbaas abu sala jé euh, jaagu mbaas chéri yaa ma gënal ñii ñee gënal ma ñëw fii laa ko defee loolu ku ne xam ne ne wër naa àdduna Abou Sala jéere fii laa ko defe ci biir këram gi kon nag père jigadiwuma ma bokk nag ci ñoom ndax ragal a féete day xañu wërsëg fii di jóg ku ne xam na ko digganteem ak jëre jëre yi ma koy nuyu du nuyu waale sama papa vie fekk jëre mi nga xam ne mooy magam ma koy dégg chaque jour muy wax kii mooy suñu kilifa paa bi bëgg ma loolu papaay Abou Sala mi nga xam ne mooy suma jumeau ñuy ànd ma jëm nag ci bis boo xam ni bis la boo xam ni am na solo trop ci sama carrière waaye moom it mu jiituma ma fa ndax tey jii seen yu mag yi nga xam ni dañu fay rêvé wala ñu bëgg fa dem yëpp jëmmam ji teg na fa tànkam muy tour du monde ak les plus grands musiciens du monde baakan bokk na ak ñoom seen man xam naa ci dara toog nañu waxtaan gis naa tuuti ci documentaire am mu nekk nag nit bu ma yéene nit bu may conseillé ku may jàppale di ma teg ci yoon wu baax mm-hmm. comme doomam bu mu jur bët bi muy xoolee kaaw bee bët boobu la may xoole xoolee bërki démb rek bi ma jëlee suma lettre di yóbbul papa baaba man mm-hmm. fekk leen fu ñu enregistré yëkkati na fa foofu kàddu wax ma kàddu yu rafet rawatina nag tey ma fekk ko fii këram parce moom xam na ni bu may dem Zénith mm-hmm. lettre am day ñëw ah. parce dama bokk ci famille jëri-jëri yi damaa bokk moom ci moom damaa bokk ci njabootam loolu waral nag tey ma def une forte délégation ànd ak sama ay kilifa ànd ak sama staff ànd ak sama label ñëw ànd ak Matar Diop suba teel boo déggee ma ne ànd ak Matar Diop Matar même bu fi teewu nekk ci yeneen liggéey fii képp ku fi teew fii képp ku fi teew mën ngaa ma Matar ki ci gën a nekk xale ba ki ci gën a nekk mag ku fi teew rek mën ngaa représenté Matar ndaxte ba ni ñuy gaaree ci buntu kër gi ba ni ñuy dugg ñi ngi déggante ak moom xam na ni fii la ñu jëm mu kontaan ci loolu nag am ci mbégte loolu ndax loo wax mu ne Bakane dafa contribuer man ci suma carrière tey ji musique bu ma ci nekkee ñeme ci loolu xuus ci ma egg fii c'est grâce à wi kàddu yooyu moo ko teg ci sama loxo bi ma egge la ko donc nag duma ma guddal wax ji ndax suma kilifa nga te xam naa ne yeneen yitte yaa ngi ko war a defee studio baa ngi suuf xam naa du ñàkk ñu la fay xaar donc père c'était juste pour ñëw sàqu si ñaan ci bis bi ma jëm deuxièmement c'était juste pour indil la sa lettre d'invitation d'honneur pour nga gunge sa doom sa jarbaat sa xarit sa sa sa rakk sa sa sa lépp pour nga gunge ma ci le 29 juin boobu nga xam ni yaakaar naa ci loolu sa ñaan ndaxte nag ku la jiitu ci nekk moo lay mën a wax fi ngay toogee waxuma la sax Zénith Bercy ma ñuy rêvé dem sax un jour yaa ñu fa jiitu donc nag ñu ngi lay tàllal loxo nga ñaanal ñu ci suñu borom yóbbu ñu ci te bu ñu demee yàlla na rembet waaye buy rembetit yàlla nañu tourné gis la nga nekk ci sa wet do nga nekk suñu wet dooleel ñu donc loolu moo nekkoon kàddu yi tey ñuy def documentaire boobu ba tey te documentaire Sidy moom jërë-jërë yi mënuñu ci génn te bu ñu ne jërë-jërë yi nag wax dëgg neex yàlla ne bàkkan donc looloo waraloon waaw looloo waraloon tànk yi tey ne naa sol sama daal ñëw ba fii yëkkati sa lettre d'invitation jox la ko anamu memar ah yónnee nga ko waaw d'accord loolu moo ñu fi indi woon donc ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi bu baax a baax bañ a jël sa temps trop jërëjëf. waaw sama gars yi tey nag moom kontaan naa trop waaw jërëjëf Serigne jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou waaw sant sama sëriñ sëñ maam Balla Mbacke bu baax di ñaanal sama yaay ak sama papa. ajaratu juma jabaay ak vie sec ak yemu góor sec maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax e, Sidi nag moom dafa baax di wax rek balaa may wax ci Sidi damay njëkkee ci Matar Diop. ndax defe naa ay écran su la tiimee dañoo nekk ci jamono boo xam ne lépp looy wax rek na nekk lu leer su leeree rek après da ngay bëgg doomu doomu aadama yëpp dañ lay bëgg ndax nit kenn du ko forcer pour mu bëgg nit jikko mooy tax ñu bëgg la te tey jii alhamdulilahi rabil alamina Matar sama rakk la waaw loolu mu la wax dëgg la showbiz bi su ci duggee yàlla dafa da ko jaarale par man c'est pas que dama yor wërsëgam c'est pas que dama ko gën daf ma nanguloon nekk sama rakk ku ma tudd mu xeex ak yow waaw su ma doon tukki ak Baaba Maal Mataara may gunge ba aéroport Prince Aar googu mu nekkoon yàlla daf ko jaarale fii man maa ko fa yóbbu woon mu nekk nag mag rakk ju am qualité rakk joo xam ne am na fulla am na fayda te it xol bi ko yàlla jox xol boobu mën naa ne ko Matar lu mu ñàkk jaamu aada doomu aadama yee ko ko xañ noonu la ko partagé la ko yàlla mës a bindee ba muy yor benn néeg ba léegi je pense que am na ñu ko fi xamoon HLM Grand Yoff Yves wax na ko léegi day rangale ay dàll Matar bi bi ñu àndee Londres yére yi muy jóob woon yëpp da ko maye. léeg-léeg ma ne ko mais Matar suñu nibbee loo fay tailleur bi mu ne ma balaa ñoo ñibbi maanaam grand non dama koy gérer te duma ko deseel dërëm ndax dañoo nekk ci dëkk boo xam ne ne que dëkk waxkat la mhm. nit ñi soo defee ñu wax soo deful ñu wax mais soo taxawee ñu nga ñu nangoo nga nangoo jël say responsabilité kenn du la wax lu mu la war wax donc je pense que loolu moom mooy waxu gor donc beneen bi ci tegu mooy Sidi dama gis lu ma neex dama naan ko yow li nga may defal moo may moo ma daaxal sax des fois ñëw man du ma tricher man Serigne Saliou laa bëgg man succès à 98 laa joué Wembley ak Carlos Santana Baaba Maal dugal na ma fu ne dem naa fu ne gis naa lu ne am naa expérience bu ne Mm-hmm. loolu tax ma ne ku ma wax man loo ma warta wax demandé wu ma kenn mu waxal ma man maa koy fajal sama bopp waaye Sidi li tax mu marqué ma man mooy ki ñu dese mooy sunu papa mooy sama taawi papa mooy sunu papa muy Alaaji Vieux Seck Sidi su suyee jee Kaolack avant muy dem fenn sunu kër googu xeebaluma ko maanaam day dem di nelaw ci biir kër gi di nemmeeku sama famille maanaam beneen bi loo ko njëkk may sur scène nu mu muntu toll mu jël ko may ko Vieux Seck Vieux du génn il a soixante dix ans mais Sidi su di war a jouer soirée Vieux dix heure lay dem fa ñu jouer donc kon jàpp jooju mu jàpp suma papa jooju mooy suñ taw waaye ñun moom lañ dese mooy suma papa noonu laa ko fonkee beneen bi ci tegu mooy Abou Salah Abbas maag seen papa ñoo bokk ndey ak baay ñoo koy tëkkal Madi Camara maag papaam ñoo bokk benn baay asek Cooma Seer Mbaay yaayam ak sama papa ñoo bokk nday ak baay Aziz Seck bu super jamono bi njëkk tëgg sabar ci musique sénégalais ñoo bokk benn baay moo njëkk tëgg sabar ci musique sénégalais kon ñun suñu famille amatuñu dara lu ñuy prouver donc may wax na ci turu jërë-jërë yëpp Babacar Seck sama doom Vieux Seck Abou Sala donc ñun Sidi sunu rakk la sunu jarbaar la suñu doom la suñu xarit la et puis li ma gën a neex bi ma nekkee Kaolack maa ngi koy wax démb ci hôtel bi li la ak Pape Diouf digal nga ànd ak sa frère bi ma la gisee ak yi barki sëriñ saaliw su ma dee woon àjjana laay jëm barki sëriñ saaliw man lépp lu dul dëgg ci man duma ko wax man gëmuma parce que man bugguma dem sax kër kenn parce que bugguma kenn ku ne ma yaa fi ne ndax sama doom yi ay mag lañ te ku ma wax loo ma warta wax rek ak sama doom yi rek damay am kersa gis leen dama koy fajal sama bopp moo tax bi ma gisee action yu rafet yooyu donc sama xel sama xel dafa dal te dinga gis lu kawe sa njort barki Serigne Saliou dina neex dinañ ci dem ak jàmm dinañ ci àgg ak jàmm mais ñan ñoo tax ñuy musique say fans say fans ñu ngi partout ci àdduna bi te Paris nag yàlla dafa def CD gars yi dañ la bëgg ci àdduna bi nit ku nekk sa bës nga am Yves donc kon soo xewlee képp kuy doomu aadama bu baax comme nii la ko say mag say xarit yëpp defee nii ma gisee image yow ñaanal nga sa bopp ba pare ndax lii munoon na la cee bañee fekk soo jëloon téléphone rek woo ma rek barki sëriñ Saliou man ma gis la ma ñàkk la gis dama leen di xam lu ma leen di wax man yàlla ngeen ma gën demin barki sëriñ Saliou ndax loolu dafa war a nekk parce que soo soo demee fu mel ni Amérique wala nga war dem fu mel ni Paris wala nga dem fu mel ni États-Unis foo mënti dem ci adduna da ngay gis mus chaque musicien dafay am studio biir këram ñu koy partager ba looloo waral tey ji c'est rare nga gis américain bu génn benn moo te jëlul disque d'or parce que xol yi day ànd sot lu ñuy sot moo tax li nga def nii yëg-yëg boobu laa ci am mais maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla lafal cat ak sa producteur Matar Diop yal na leen yàlla jubale yal na yàlla teg loxoom ci barki xaadim rasul ci barki sëriñ Babacar Sy ci barki Maulana seexul islam ci barki maam Limaamu Laay donc yow jàmm rek ngay am tey nag bég naa gars suba teel ak équipe bi yëpp vraiment mention spéciale donc yàlla ñun ñëpp fii am kenn gumb ku gumboo sax yaa ngi gis donc ñu ngi leen di remercier ni ngeen di bàyyee seen i soxna bàyyi seen i doom di gunge suñu doom ji parce que nag temps kenn amul temps mais li ngeen nii def kuy góor rek xam na ne que lii Sénégal mooy dem donc comme Sénégal mooy dem donc ndam rek war a am donc vraiment sa yaay Mounass aussi mu ngi lay ñaanal waaw ñu comme ni la Kaaw ak Taala ak Mama Juma di la ñaanalee donc adduna bi yëpp ñu ngi lay ñaanal te donc yaakaar naa ne que incha allah festival bi ñu war a dem maag yow ñoo fa war a ànd yow war nga jouer man war naa jouer bu neexee yàlla fële ci Espagne. aussi tamit bunt yi noonu la ñuy ñaanee yàlla muy ubbeeku ba suñu yeneen moromu artistes yi ñëw mbir mi gën a yaatu mm-hmm. jërëjëf